comme sànq na maa ngi koy dégg journal on dirait que tey mooy journée mondiale de la drogue waaw léegi nag foofu li ma mën a wax mooy comme ni ma ko waxee rek ñun daal constaté nañ que ni jeunes yi actuellement am nañ facilité ci accès drogue bi. oon dirait que nag am na leneen loo xam ne nii moo ngi si ginnaaw parce que drogue bi à l'époque dañ doon gis que ni yaa ay mag rek ñoo amoon accès si jël ko mais léegi dañuy gis ay jeunes à ba âge ñu koy utiliser facilement gis nañ ne daal léegi drogue bi moom ça circule. tout partout fu ñu koy mën di gis ci société sénégalaise bi loolu daal moom lañ mën a def reconnaître à propos de la drogue actuellement ak société bi waaw foofu aussi comme li ñu wax rek. bu ñu xoolee li nga xam ne moom mooy autorités yi ñoom ñoo ci war a mën a jël les mesures nécessaires parce que tey ji bu fekkee ne ñoom ñooy les garants de la société tamit di xool li nga xam ne moo fi a dugg ak moo war a génn ñu koy saytu li nga xam ne mooy jeunesse bi ak population sénégalaise bi tey buñ ñu constaté que ni drogue bi mi ngi dugg facilement si dëkk bi kon foofu yaa problème parce que comme ni ñu koy waxee à chaque fois si frontières yi dañuy dégg ñu ne jàpp nañ benn quantité drogue boo xam ne am na nu muy toll soo ko déggee kon on dirait que ni la parce que bu fekkee ne am na lu ñu jàpp ne am na lu doon dugg li doon dugg nag comme ñoom ñoo gérer frontière te ñoom ñooy gérer kaaraange gi war nañ mën a jouer le jeu def euh, les mesures nécessaires ba accès bi war a mën a difficile aussi en plus bu ñu jàppee lu mel noonu war nañ ci mën a jël les mesures nécessaires yoo xam ne ku ko dégg aussi boo si nekkee sax war nga mën a ragal mais léegi dañuy gis que ni dañuy jàpp dara tey suba ñu taal ko ginnaaw suba kooku nekkaat si wala mu demee neneen xaw na doy waar quoi mais ñun nag comme nekkuñ si milieu bi ñoom ñoo nekk si milieu bi war nañ mën a xam yan mesures lañ war a mën a jël à propos de ça comme solution sanction yi war nañ ko mën a gën a gën a gën a gën a gën a dolli nu mu sévère aussi tamit jeunes yi nga xam ne ñu ngi si ñu ngi si drogue bi comme tey les parents tamit am nañ benn rôle à jouer parce que boo amee doom tey mu am lu muy jël wala mu am benn melokaan bi man je pense que ni war nga mën di waxtaan ak moom di ko sensibiliser. au niveau des écoles aussi war nañ si mën a jël même bu dee benn forum ci école bi benn yoon ci année bi ñuy sensibiliser jeunes yi di leen wax que ni drogue bi fii la la mën a jëmee lii mooy conséquences yi lii la la mën a yaaxal entre copain lay doon quoi nga am koy àndal mu utiliser lu mel noonu tey xam nga nga ànd si di utiliser loolu kon au niveau des écoles aussi les parents am nañ benn rôle à jouer de même que les autorités ku ci nekk boo defee li nga war rek yaakaar naa ne bi war na mën a rétrogradé wàccaat tamit loolu daal laa gis comme solution. drogue bi daanaka nekk na loo xam ne lu ñu war a moytu la si dëkk bi parce que mu ngi yóbbu nit ñi foo xam ne àgguñu fa. di sonal parent yi di sonal population bi surtout ma société yi daanaka nit ñi dañ koy utiliser pour soulager wu la majeure partie parce que stress bu ñuy àndal la te lépp waralu ko am na ñoo xam ne ñu ngi koy def pour wane njàmbaar naan ay góor yàlla lañ wala dañuy wane affaire banditisme xam ne ñoom ñoo nekk ci population ñooy gérer lépp. fekk na mu leen di lor mu leen di lor di lor population bi di lor seen doom yi ñëw nar a ñëw ëllëg te si biir door bi lu ne nga siy dis da siy dis loo xam ne tey nit ñi ngi koy utiliser ñu ngi def ay agression di def ay violation si biir kër yi kër ba tax na nit ñi suñ koy def sax duñ si bàyyi xel lu leen neex lañu ñu koy utiliser te xamuñu si conséquences yi moo tax da ngay dem hôpital Fann la majeure partie ñu koy utiliser rek ñoo fay ne ñu leen di dindi ñu leen ñuy def le tour di yàq seen xaalis pour dindi ko à la fin suñu leen suivrul dañ siy delluwaat waaw xanaa di ñax nit ñi di ñax doomu aadama yi loo xam ne luy lore la nañ ko moytu jëm ko éloigné wu si ñoom parce que seen wér-gu-yaram lay doon mais tant que ñu ngi koy utiliser ñu ngi mettre en danger la population te loolu tamit baaxul. man su ma doon jaaykat nii léegi léegi léegi nii samay waa kër dañ may jàppale kon boobaa xam nga dañ may suturaal loolu la ñu war a dindi si dëkk bi affaire suturaalante bi affaire mbooloo affaire kii bi nañu war a bàyyi dimbalante bi ngir yàlla rek na ñëpp jàpp ku nekk ku sa kër am lu bon nga génne ko nga wax ko nga dem ba si chef de quartier bi nga expliqué ko loolu mooy yoon mais bu ñu bàyyee lépp si loxo policiers yi moom du ñu mun a def dara parce que policier amul dugg amul fit dugg kër jàmbur di jàpp nit. en tant que amul euh, amul ay yu leer mais ñun ñu nekk si koñ yi ñu ñoo war a génn jàpp jàppale chef de quartier yi jàppale administration bi pour liggéey bi jëm kanam quoi. solution bi mooy daal lépp lu ñuy saisir lépp lépp lu ñuy saisir mu am beneen société boo xam ne wala beneen kii boo xam ne mooy controle yooyu parce que ñun suñu biir bu ñu dul contrôlante rek dara du sotti waaw même président bu ñu ko contrôler rek dara du sotti. il faut que yi am ñu leen di contrôler ñiy jàpp drogue bi am ñu leen di contrôler ñoom tamit ndax lakk nañ ko wala lakkuñu ko ndax sànni nañ ko wala sànniwuñu ko voilà man daal loolu mooy solution bi daal waaw buñ ko jëlee rek na am ñuñ ko ñu leen di superviser ñoom tamit waaw ñoom kese buñ ko bàyyee ñoom ko quoi buñ ko bàyyee ñoom rek dara du sotti daal waaw am ñu ñu taxaw ñu ñu leen di surveiller ñoom tamit buñ ko naree taal ñu xam ñaata lañ taal buñ ko naree tuur ñu xam ñaata lañ tuur mais buñ ko bàyyee ak ñoom kese ñoom ñooy delluwaat si biir xam nga génne waat ko di ko tasaare di ko jaayaat xam nga loolu day yokku day yokku banditisme si dëkk bi man daal loolu mooy suma loolu mooy suma xalaat quoi solution bi.